sax ci gàttal rek bi ñuy defar tali bi tracteur bi ñëw na fi bopp koo maasale waaye heure bu ñëwee ba jub ko rek day pandu dem biñ demee ba xam ni mënatu dem ndax ki fi tëddee nit yàlla moo waral mu def lii moom histoire la lii moom benn la ci àdduna lii. lii moom ku yàgg a tukki fu ne nga dem fa lii moom yow mi yàgg a tukki nga xamante ni ànd nga président Abdoulaye Wade fu ne lii mosoo koo gis lii kon ki dëdd fii na nga xam ni. bu dee daa am loo doon wut si boo fi duggee ñaan ko suñu borom mën na ko nangu te yàlla na ko def ci barke yonent bi li ma gën a neex ci moom nag mooy daa am teraanga ba pare doxewu ko waxewu ko tey jii bu ñu doon xool ci ñim marché jamono kenn ëppalewu ko ci dara waaye lu mu am jox na ko yonent bi asalam ngeen mu dëkk ku ne xam na la fa def ak feneen ak feneen ak feneen moom nee na ma sama alal fen rek laa ko yàkkam dee def ci yëfu yàlla di def li ilaahi daaral karim bu soxlaa dara te ñu xam ne li mu soxla ci ñun la gën yàlla ko am ci barke yonent ci barke guddi gi zalika fadlullahi yuxtihi man yasaa'u yàlla ko fal ne leen sëriñ Fallu ak Gazaar Seex Muhammadul Fadilu sa maam faj aajo moo ci gën a gaaw balay lu mu wax yàlla mu ne waaw day fal di fal ci lu gaaw mat naa ragal ci xarnu bi ku soog sëriñ Fallu Mbàkke defal ni ñu màggal bàyyi sëriñ Moodu Musa Jeng Seex Mamadul Fadil kii mooy fal fal tey jii ku ko neex mu fal la ngay fal kii mooy saayibul fudala awal fadaayil maanaam yow yi ahadul ku dem ci sëriñ Fallu xam ne raw na mboolem fi yaaram ci wàllu bu ne Alaaji Fallu maanaam sëriñ biha soxna si biir Fane Mbacke dafa yéene Mbacke maa di soxna maam Awa Mbacke maa ngi sëbëri sëriñ Mbacke maaram ku dëkkulul naar yaa ko gën maam alaaji Fane Mbacke mooy sa maam bàyyi alaaji baara Falilu jataayu tey bii jataay yi fi daan jël yëpp taw fexe na neex na waaye guddi tey gii wér na ma ni ku fi ñëw sa aajo faj ndax mbégteem soxna maam Awa moom suñu Modou Bousso Dieng mi toog te ay loxo saa yi fi teew ah. daan nañ fi teew de waaye tey jii sëñ Abdoulaye Seck El Hadj Abdoulaye Seck ànd ak El Hadj Pate Mbaye mii bàyyi ko ban ba ba Côte d'Ivoire ànd ak ba sëñ Mor Ngiraan doomi Baye Mari Ngiraan ca Njaaréew ànd ñoo fekk bi sëñ Mor Massamba Diop Kassaye ak ahlu Kassaye yi dégg sëñ Mbacke Madina mu baax mii di sutut sëñ Baara ah monsieur le maire Massali nag sa jotaay bii nga ñëw màggal sëñ Abdoulaye Yakhine gi rafetal njort man naw tudd na délégation bi duma ci jàll di dégas di di continuer waaye li ma lay wax mooy soxna Nana falal lu sunu waa ji yëkkatil ñu ko yëkkatil maire Ogas teg ko ci loxoom sa maam na ngi ñuy dégg di sa xab lay yàqin sa maam na ngi ñuy dégg di sa xab lay yàqin sa maam na ngi dégg di soxna Maguette Aydara sa wayjur bu baaxu mi dégg di sëñ Modou Boussa Dieng mun sëñ Fall bis bii bisu Fall la bàyyi mu jaañ li ma bëgg ci guddi gii soxna Mame Awa defal ko sunu monsieur le maire mi ngi mooy mu fal ko ci guddi tey jii bu fi jugee coono mën naa bëri waaye ndax monsieur le moom fu ko bañ di yow nañu koy dégg ci yow moom nañ ko téye ci say bi ndax dëkk bi ku la fi ëpp jom gisuma ko monsieur le maire Massaly nangu naa ku la mag waaye a ngay woote waaye luy mën di xew yow bi ngay woote da ngaa jëf ba noppi doo koy woote président Massaly monsieur le maire Massaly da ngaa jëf ba noppi doo koy woote yow toogoo ba tey nga xam damay woote monsieur le maire ab dëkk nag boo fa bëggee dara da nga fay def dara ba noppi sëñ xaar da nga fay def dara ba noppi doo koy woote ni dama fay dama dama faa bëgg dara waaye defoo fa dara bëgg a woote dama faa bëgg dara kooku nit ñi waroon cee yow moo tax monsieur le maire Massaly ñoo ngi ñaan ci barkeb sëñ Touba barkeb xasida yi barkeb guddi gii meeru Olos bii ngay laaj ñoo ngi ñaan ci dara jëy sëñ Bamba mu teg ko sa loxo am nga am nga am taxawaay ci dëkk bi dëkk bi lépp lu si as di def def na ko te bi nu wootee yaa njëkk a jël sa xaalis def ci def ci dëkk bi barki demu Covid bi soo fi ñu wooyee ak ci internet bi daw millions yi nga débloqué xajoon na ci immeuble xamal na ci sa famille waaye nga ni déedéet Sénégal bu fi Covid duggee laaj ndimbal laaj social war naa cee def sama alal ñëw jébbal ko. gouverneur de la région de Thiès Mouhamadou Moustapha Ndaw lépp ngi fi dara lu yow masali coono mën naa bëri waaye lu mën di xew xanaa bañ a wax ak bañ a yëkkati kàddu waaye li nga def mi ngi ne fàng koy gis moo tax dañuy ñaan ci darajey sëñ Bamba darajey Seexu Xaadim darajey sëñ Fallu barke moo awa mii toog yàlla yàlla yëkkati li nga bëgg teg ko sa loxo yaag délégation bi nga àndal dégg na ne lool suñu xol sedd na Thiès jëf nga fi jëf joo xamante ni daal dama a xoole fi nekk waaye ku ko jëf yi ma sali barke Serigne Bamba sooroolu Serigne Bamba la sooroolu bu Lamp Fall la loo bañ bañ bañ booy dugg Touba ni ko gis booy génn Touba bu baax monsieur le di am mbégte man daal dafa sedd. Serigne Abdoulaye Yaqin mag soxna Maguette ay dara lii may bëgg a wax moo ma ko wax fii moo yónni maam bu Jaw ni ko wool ma Aliou Ndiaye ci kër baa Babacar Ngom ma ñëw mu ni ma sëñ Ablaye moo ma tey barki bii. moo ma téye fii barki bi ni ma liggéey bi ma liggéeyoon te joxoon ko maam Cheikh Ibra mu joxal ma ko Serigne Touba damaa bëgg nga liggéeyaatal ma ko joxal ma ko Serigne bi mu joxal ma ko Serigne bi yow nag yow la njëkk a dugg sa ma ne ko ni nga ko bëgg lay amee mu ni ma alhamdulilah jóg tëju ni ma li tax ma woolu la wax la ko de damaa bëggoon ku ma ko wax mu njëkk ma ne li nga bëgg dina am ndax sa ñëpp laa ko sant ñu ngi ñaan ci kattanu maam Cheikh Ibrahima Fall daraja ji muy wut ci àddina maam Cheikh Ibrahima jox ko lu kawe njottam ci doole yi laa ilaha illallah laa ilaha illallah la ilaha illallah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 Bassirou nga yàgg fi nga yàgg fi nga koy ñaan ci kat mbaax Cheikh Mountakha Serigne Bassirou nga yàgg fi yàgg fi nga fekk ko ba ko xaar Cheikh Ibrahima Fall la koy ñaan ci kat mbaax ci ñaan di Cheikh Modou Mbeng nga yàgg fi la la la la la la la la la la la moo baax moo gore gannaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ne gannaaw bu ñu sant yàlla suñu borom julli si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. di ñaanal xalif général des Mourides sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg lool. di ñaanal suñu wéjur xalif général des Mourides sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te ànd ak wér. ak bépp taalibe bu fi nekk ak sëriñ. ak bépp sëriñ bu fi nekk ak bépp taalibe bu teew si jotaay bi. sama wax sama xol ak sama xel dal na. nee na xelam ak xolam yépp nag daj na. li tax ma wax loolu. nee lu tax ma wax loolu. damay dëggal tey sama diggante ak soxna Awa Mbacke. day dëggal digganteem soxna Awa Mbacke. seen diggante ñoom ñaar. man day toog naa ba ne ko soxna si. moom toog na ba ne soxna si. bu dee jigéen. bu dee jigéen. ci mbàkke mbàkke. ci mbàkke mbàkke. sëriñ si la ñuy wax. sëriñ si la wax. wala soxna si la ñuy wax wala soxna si la ñuy wax. mu ne ma yow suma frère nga. mu ne ko yow mii toog sama frère nga. jàppal na ñoo bokk ndey ak baay. jàppal na ñoo bokk ndey ak baay. loolu suma ma doyul. loolu moom mi toog bu ko doyul. dara duma ma doy. dara dootu ko doy. dama jàpp ne. dafa jàpp ne. xam naa ni xam na nit as gor pire laa ko sekkal. as gor pire la ko njaboot gi mu bokk. njaboot gi mu bokk. ay gor pire lañu. ay gor pire lañu. lii rek firndeel na ko. nee na lii rek firndeel na ko. parce que nit amul lu dul bésam. parce que nit amul lu dul bésam. sa bés du ñëw. sa bés du ñëw. sa mbokk yi teew. sa mbokk yi teew. say xarit teew. say xarit teew. say soppe teew. say yu bëri. bâche yu bëri. waaye li ma gis fii. waaye li mu gis fii. alhamdulilah alhamdulilah rabbil alamin man day munuma sori. moom day munu sori. ku nekk la nga mën. ku nekk la nga mën. nañ ko ko nangul. nañ ko ko nangul. ña mën a jàng alxuraan. ña a jàng alxuraan. alxuraan la ñu xam. alxuraan la ñu xam. ña mën a jàng xasida. ña a jàng xasida. xasida la ñu xam. xasida la ñu xam. ñuy politique it. jàpp naa ne loolu mën. jàpp na ne loolu mën. wax ju du bëri. kon wax ju du bëri. maa ngi ñaanal ñëpp. ñu fi nekk ñaanal képp ku fi teew. guddi fan ak wér. guddi fan bu ànd ak wér. ñaanal sëriñ si. di ñaanal sëriñ si. di ñaanal soxna yi. di ñaanal soxna yi. yi fi nekk. di ñaanal suñu wayjur yi fi ak suñu mag yi ak suñu mag yi yal na yàlla guddal seen yal na yàlla guddal seen sama xol fees na fees moom mii toog xolam boo xam ne aw ma fayu amul fayu jàngkatu xaside yi jàngkatu xaside yi xabaan suma xarit la xabaan xaritam la ma rakk la rakkam la suma wólëre la wólëre la ñoom moon njaay ñoom moon njaay ñëpp sumay xarit la ñoom ñëpp ay xaritam la ñu doon jàng kaamil géej ñu doon jàng kaamil yëpp ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñoom sëñ bi ñoom sëñ bii toog sumay xarit la ñëpp ay xaritam lañu adduna nag adduna nag yàlla mooy xool lu ko neex yàlla ko def ko ci jaamam def ko ci jaamam am na fu ñu jëm am na fu ñu jëm. muy ay élection muy ay élection candidat la. candidat la. kuy gagné. kuy gagné. suñu borom rek ko xam. suñu borom rek ko xam. mais eh, am naa sañ-sañ. am na sañ-sañ. ñëw si mbooloo gii. ñëw ci mbooloo mii. seet fi sama jigéen. fekk fi jigéenam. su ma xaritam. soxna Awa Mbacke. soxna Awa Mbacke. ak mbokkam. ak i mbokkam. gëmuñu lu dul Cheikhul Khadim. gëmuñu lu dul Cheikhul Khadim. amuñu lu lu dul Serigne Touba. waaye nag. waaye nag nit ku nekk. nit ku nekk. gannaaw yàlla. gannaaw yàlla. ak fa nga yaakaar. ak fa nga yaakaar Sarr yaakaar naa soxna Awa Mbacke yaakaar na soxna Awa Mbacke yaakaar naa ay magam yaakaar na ay magam yaakaar naa ay maamam yaakaar na ay maamam yaakaar naa ay rakam yaakaar na ay rakam tàllal leen samay loxo tàllal leen ay loxo ñu jàppale ma ñu jàppale ko taxaw ma taxaw ko ñaanal ma seen maam ñaanal ko sa barke maam leer na ma ne leer na na ko bis bu ñu dogoo bis bu ñu dogoo suñu borom dina ko def suñu borom dina ko def de su may tëjee buy tëjee nag xam naa xabaan laay bàyyi mu yeggali xam naa xabaan lay bàyyi mu yeggali mais ñoom ñi ma fi fekk waaye ñoom ñi fekk. ak képp kuy jàng. ak képp kuy jàng kat. dinaa yëkkati téeméeri junni. dina yëkkati téeméeri junni. teg ko ci loxo xabaan. teg ko ci loxo xabaan. pour mu séddale leen ko. pour mu séddale leen ko. defuma ko ngir lenn. defu ko ngir lenn. dama participer. dafa participer. ci xasida Cheikhul Khadim. ci xasida mi nga xam ne moom la yaakaar. mu dee ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. mu dee ko Seydina wa sallam. tey di suñu bésu maam. lu si waay mën a def. lu si waay mën a def. waru koo mën a xeeb. a sama diggante ak ñoom. waaye digganteem ak jàngkatu loolu bu yoroon lu ëpp loolu barki Cheikhul Khadim barki Cheikhul Khadim dana leen ko jox dana leen ko jox waaye ni mu demee la waaye ni mu demee la fi ñu jëm fi ñu jëm ak fi ñu jógee ak fi ñu jógee moo waral loolu moo waral lii mais sama xel waaye xelam ak sama xol ak xolam ëpp na loolu ëpp na loolu yàlla na yàlla defal yàlla na yàlla def jàmm yàlla sàmm leen yàlla sàmm ñu taxaw leen taxaw ñu taxaw ñëpp taxaw ñëpp nag ñaanal sama jigéen di ñaanal jigéenam yàlla na ko yàlla dëgëral yàlla na ko yàlla dëgëral yàlla na ko yàlla aar yàlla na ko yàlla aar yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla sàmm ba lépp lu mu yaakaar ba lépp lu yaakaar yaakaar ko si njaboot yaakaar ko si njaboot yaakaar ko si keppaaru yaakaar ko si keppaaru maama yàlla na ko suñu borom wàllu yàlla na ko suñu borom wàllu taxaw ko taxaw ko taxaw ñu fi nekk taxaw ñu fi nekk ñëpp wasalaam allahumma salli ala sayyidina muhammad ak kenn xamee ma wax ci programme li ñu wax ne mooy jàng kasaay dem ñibbi waaye nag asgor bu ne asgor lay doon te ku la tere rek moo la tëral Mamadou Masal mii yàlla moo bëleeg moom ak Serigne Saliou Mbacke yàgg na lool amaat suñu mën ndaw léegi ñu ko traité bi ma njëkk a defal dama yàlla ñu ko may sant Serigne Saliou fekk ko ca tool mu yëkkati deux millions jox man ma su dóor nga ma dolli di ma xabaan da nga xam ni sama frère nga sama xarit nga sama xam nga ma yëg sama xol te mën naa ni gën ñoo gisee ci saa yi sànq laa ko grand danga maa bàyyi ma amoon numéro bu baax bi gaa ma jox bu baax bi may xamal waa Thiès ñu leen ñun day ay jàngul xasaayit la tey Sëñ Tuubaa lañ yaakaar fii ak fañ jëm waaye nag lu am murit di xëccoo jàpp nañ ni moo ko war a jël te moom mii kat am murit la nekk na ma ne ma am naag Abdoulaye Wade ba Sine Saalum Mbacké Sine Saalum Mbacké kaamil ak kurus bàcc alxuraan moom ñii wax na ma loolu ci néegam maag moom ak yàlla rek ma wax nii sëñ Mor da nga xam yaay suñu jóguñ fii ci si as xasida yi li may def na la jaaxal waaye nag daam li ko waral mooy jëmm ji day as gor jàpp ñu ngi Sëñ Tuubaa day tëral ngi Sëñ te jàpp naa ne yow ab jànka bu ne Thiès ak fu waay ne luñ ko defal yow lañ ko defal si démb yow sëñ diggante ak moom a gor la jàmbaar la ku bëgg Sëñ Tuubaa la solo maam Awa Mbakke ma ndaw ma ndaw solo maa awa solo maa ma tuuti rek solo maa baax bi at mu jot da nga naan woo jàngkat yi ñëw jàngal la yi ngi sa bisu maam bi tey nag ma jël kàddu man su ma jàngul sax ma noppee pare naa jëlu may jàng kàddu yi mën su am jàng ma lay wax suñu diggante nga xam ni Sëñ Tuubaa tax mu jàpp nu yewet nga jàpp jàngkat yi ngir Sëñ Tuubaa soxna ma si jotee da ngay bàyyi sa yitte yëpp ci sa téléphone wala jàngkat yëpp te ku ne xam ne sa wér ma mayu ko sa kàttan may la waaye di nga jaayante ànd ak jànkat yi wan leen maag yéen ñëw bokk leen waaye ma lay ni kii nga xam ni mooy ci baax bi baax bi dana am ay gan waaye kii fi ñëw ren de ñun yëg nañ ko suñu xool bu baax a baax nga yàlla jëmmi sëñ Issa rek tax may ñaan ci bàkki sëñ Tuubaa bàkki sëñ Mourou Moussa Dieng sa waaje nga xam ni sëñ Mourou Moussa Dieng kat ku ne xam bëggee kayit mu moo ñaan kayit yëpp sotti yow nag ngay leeram jox ko ci moom am ñaari cër kii li mu bëgg mën nga ko am nga ko defal ko ko man nga am nga ko defal ko ngir sa maam sëñ Fallou ngir sa bàyyi sëñ Moussa si ngir sa bàyyi sa sa maam si man nag li may wax man la concerné ku jóge fii di xabante politique ça va yaa xam mais man li ma wax man xam naa ko kii sama xarit la moo ne xabaan sama xarit la Mamadou Massaye sama xarit la xabaan la ko wax ba loxoom jug ca kaw sama xarit la sama mag la lum ne man na ca lum nekkul du ma ca ne man ak sama njaboot ku am ci man sax suñu kàtt yi suñu bàtt mii ku ne xam na ko sëñ Modou Moussa Dieng soxna Maawa sëñ sa taay bi baay sëñ Modou Moussa Dieng la nee na boo ko ko kii mu fami kon loolu leer na euh, si loolu daal la doon wax nañ ko wax suñu diggante ak Mamadou Massaly fii la toog ma toog am yaa ma su ma fi laa koy teg ndax maa yow suñu am du fii tamu yàgg di ma daa moo bëgg di ko yót man nag man xabbaan ak ku ma am sama mbokki talibé yi ñi nga xam ni ñoo bokk Sëñ Tuubaa nañ jàppale murit bi li mu bëgg mu am ko ndax am ko mooy sunu ndam te fii mu toog ci guddi gi daa war a am li mu bëgg na ko war a am nga ñëpp ñaan mu am ko te mu gën ci moom am ànd ak njabootam gëm ci mu àndal ñëpp masali yàlla yàlla jàppale la yàlla yàlla kàttan la yàlla yàlla doyal la ba ma bàyyal même rek même même tuuti même nga ma même rek naa sa sa la man kenn xamuma wax man jàng xasaay lan ma wax xamee sëñ Saliou sa waaja moo ne ma juwa jàng xasaay it may jàng xasida du lay bàyyi Amar Diouf lii ma def yaa ma ko jaral ku dul yow jaralu ma ko ku dul yow jaralu ma ko bàcc sëñ Tuubaa teral ga ma teral démb nag moom laay xool ba tey loo ma jox soxla ma dara nga jox ma ko sa xool dina seet guy ci bàcc sëñ Saliou kon man doon kàddu gaa ngoog